danaa la combat bu nar a neex a ngi nii arbitre bi mu leen wax le règlement yi nangu lu mu bañ ndeysaan léegi arbitre bi bu ma dégg troisième combat bi ndeysaan waaw waaw mi ngi noonu Wally Far Far taxaw waaye albarka tamit ma ngay jot nee naa la combat bu noor a neex ak nii nga doon gis ndeysaan waaye albarka dem na songu ji ko Wally Far Far la na ba ci saako yo taxaw ndeysaan koy fatfat Aliou fatfat Aliou fatfat Aliou Barka Kairé attention ndeysaan jàppante nañ Aliou Barka Kairé Aliou fatfat lay lay la law ilaha illallah ah lu xew génn nañ saako yi génn nañ saako yi eh bëre nañ waay albarka kayre ali fat fat ndeysaan oh bëre nañ ndeysaan ñaari xale yi bëre nañ ba génn saako yi oh albarka kayre ndeysaan suñu goro Albert Kéré suñu goro ndeysaan suñu la ndeysaan Albert Kéré suñu la attention ay eh, waay ji waaw waaw ji jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar ay eh, waay ji lay eh, lay laa ilaaha illallah albarka bëre na ba bëre daanu daanu bi ndeysaan oho laa ilaaha illallah oo ali farfar mi oo dëggal na ndeysaan waaye xale bi bëre na bëre bi ndeysaan oo ali fali farfar waay laa ilaaha illallah ndeysaan ñëna ki soq ndeysaan oh ndeysaan ndeysaan jaana ci suuf ndeysaan albarka oh bëri na bëri bi waaye daanu na daanu bi ndeysaan moo bëri moo daanu ndeysaan oh ndeysaan